Thank you. malade. Hein? Hmm? Tu es malade, j'ai dit. Hmm. C'est comme ça que tu fais le gel. Hein? Hmm. Et faille, toi aussi. Maman! Maman! Tu es là, ton mari va mourir ici. Regarde comme il est couché comme ça Qui ça? Ton mari là, il est malade. Est-ce qu'il est capable de mourir? Faille, foo amee nii loo eh loo glace ñàkk a jox ma ko ca loo glace fekkee tu du jaarale. da ngaa que fay tu es malade. c'est ça c'est ça. sa hmm. faut donner médicaments. Quand du jaarale xanaa tamit 19 heures. ça fait partie de ça aussi. même ah. si tu es malade tu ne dois pas manger. bien sûr. oh attends-moi je veux je veux juste discuter avec toi c'est que yow li problème bi mooy man wax ak yow day métti parce que man anglais bi mm-hmm. boo ci demoon dina mën a wax ak yow. Mm-hmm. pël bi séeréer bi mais français bi. Mm-hmm. franchement ça ça ça veut dire entre toi et de. ti hmm? ko affaire de njëkkee affaire de joxe weeru koor suukar ti ko ne sax. mais quest on prépare ça comment. par exemple. Mm -hmm. la petite sœur de Faye. Je vais te donner les tranga au Ramadan. Tu connais ça? Tranga aussi, c'est manger. Non, non, tranga, c'est une affaire de Nukalande. Affaire des Zanties. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Entre, ah. toi, entre toi et moi. Ah. Si, tu as le petit sœur de Faye. Oui. Tu connais, tu, tu, tu, oh, tu, comprends. Eh. C'est ça qui fait mon de mon groupe, moi. Ah. Eh, d'accord, d'accord, d'accord. Faye, hmm. da xam nga seen famille car macha allah tubaab fakal la tuf mhm. dañoo bëri tasakat mhm. yaa may dégg faye miiro waajo miir toogal man lay la pare seen famille xam nga dama bëri ay noonu seen biir famille yàlla dafa dafa dafa dogal nag sax at ma defanteeg ñoom tranga te yàlla dafa def man sama noonu su ma leen di toroxal dafa am nu ma leen di toroxalee ndax ay sañ sa laa leen defal fu ma jaar ba fa trace suma len koy jox nak dafa am ni ma leen koy joxe suma len koy jox amane dañuy biiju waaye ku ma dem nga wax sama ginnaw ndax lama lay jox dafa frise tuba fakal la sir fay la deug neexu te fay nak sama ndaanaan gis ak at nga sagal ma ren mo dess ñi ci bokk dañu beur ren sa bengal ci la bokk ah. cette année-là, uh-huh. tu es la petite sœur de Faye ou bien la grande sœur C'est ça, vraiment. Il, faut que je... il est gentil. On discute, mais c'est mon frère. Ah. Il est gentil. Il faut que je te fasse la tranga. Ton mot de tête là, maintenant, ça va. Ça va. Mm-hmm. xool mm-hmm. Benga mm-hmm. Day Magen, Mama Fanta Mami Dia Fama Diallo Chat, uh, tuba fakal la sa tante ba ci geedji way nga xamantene daf ma baña baña baña baña bañ ba xaw nu mu tuddu la la petite mama de Libi c'est c'est moi elle m'a elle m'a détesté tellement il faut que je le fasse la grande tranga la grande boli avec des guenards, des vaccins Tu connais vax Oui, je les Il faut que je, Les woodings que je vends comme ça. Merci, ma copine. Mm, c'est ça. C'est que le ménage, il faut que vous C'est ça, c'est ça. C'est ça. Les pour pour faire ça mm. c'est notre art, notre tradition pour préparer c'est bon c'est bon hein. merci Jai jai jai, nga jëng gisee lool lool ah, lool lool lool lool jàmm rek <laughs> ne jàmm ju alhamdulilah rabbil alamin xam nga moom sama dox dafa bareetu moom kay nag pour gis la sax moom dafa eh, nekk weeru jàng alquran weeru jéggulu suñu borom weeru julli ci yonant bi sallallahu alaihi wasallam. sallam weer woowu na dafa laaj li jox ko temps bi lambar lambar gi nekkoon yëpp ñu baxoo alhamdulillah rabbil alamin santat yalla nañu santat yalla alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin waaw serigne mom ah <laughs> sa waji soppeku nga de soppeku serigne ba ba ci wéru koor gi nga yiw ni ah alhamdulillah rabbil alamin kenn gisatu la nga nek nga nek ci mbedd mi lambar lambari di mandi rek top sangara si rek tay ji nga melni santal yalla nak santal yàlla bu baax a baax a baax. tu as quelque chose à reparler. Hein? Tu as quelque chose, tu vois, tu vois. Tu n'as mon massa. Moi, j'aime bien. si, tu si tu prépares, je vais manger. Ça, c'est pas mal, c'est tranga. Mmh. Après, de nous colanter. Il y a un mot, pour l'école. Mais... C'est ça, oui. Oh, mm-hmm. Yo, maman. Mmh. Dama yaakaar ne da ngaa feebar wala da ngaa wala ñu tawal. Oh. maman yàq kay la te yow ñu ma lima yépp ay jàllo jàllo ngi jàllo ba ngay dégg say mbokk la. say mbokk seeg jàllo jàllo yi say la de man fay laa seer. deuxième bi kay fii aw benn teraanga bu may jël di ko yëkkat di ko jox ay njëkke aw ma awma teraanga bu ma jël di la ko jox nga koy jox yi njëkke waaw yow ñi nga lim ñëpp ñoo ma maman gis nga jamono bi ñu nekk nii leen fu koor ñewé ramadan sëru mu ñewé. Uh-huh. les femmes sénégalaises uh-huh. obligées uh-huh. rassemble def rassembler pour ngacc les poches des Ki kii poche góor Euh, pour faire des massages voilà c'est bien c'est bien pour faire massage là c'est bien il faut que je 12 mois c'est mois. Et mois. c'est pas normal c'est pas bien. il faut que tu écoutes bien mes paroles. j'écoute. gaspiller gaspillage c'est pas bon. mais ma c'est pas gaspillage. Mhm. et toi fais aussi. pitié Il y a maman. peu mhm. dafa xeeñ Il y a un peu ba bàyyi leen fu koor ñëwee ngeen bëgg a jël yàq naan njëkkee lii njëkka laa njëkka laa yow li ngay def daf lay leer na yow yaay ngi dëkk ak nit mu soxla ko lool nag bu ndaw jotee waa kërëm sax dañu am problème bu ñu ndogoo yow nga jël ko yaay bëgg ko bëgg ko roñ yóbbu joxe kan ñi nga xam ne ñoo tamit kan. loolu fa ko teg baran duma toroxa samay nopp di pitié di di la vérité di di di la vérité kenn du la vérité dis la vérité la ñuy wax. xoolal lu muy yàqee. elle elle sa la France. yaa comprendre di la vérité rek. Mm-hmm. est-ce que gaspillage. Mm-hmm. y a quelqu'un y a quel dëkkandoo. il est de côté. Mm-hmm. kii lu mu lekk problème. mais dëkkandoo fële. mu ngi lekk bu baax. ti romb ti tii romb elle. voilà est-ce c'est normal. c'est toi qui dis ça. l'autre jour là je t'ai dit là le jeune là c'est deux. C'est dur, tu nous as forcé à faire le jet. Hein? Maintenant, tu restes ici à dire que tu es fin comme ça là. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Il n'y a pas de manger ici. Tu vas continuer. C'est ça. Oh. <laughs> C'est ça. Eh. C'est ça. Mm-hmm. Faut parler là. Man man man man man man mm-hmm. man soo mënee len nak mën naa la jox nak dara nga porte à porte xool faxe li nga xam ñoo nek fi ni nga jàppale len les néew du doole. Mhm. nga jàppale len mhm. waaye len ni du doole sama papa dimbal na ma ma jàppale len ma jàppale len dama ne nak yow dama dimbal ma toroxal sama ma ma do ma dimbal legi yow sa bay ngay sa sa bay la nga nga yene yiw bi man yene man sa fam ay waay sàmba léegi daal sa. sa sama sa baat. ah dia ah kay ñoo ñoo tare wa fay baax sama sama li ma ah, li ma gën a sama tante bi nekk géejawaay ku bon la ku soxor la anta sek Mais c'est pas C'est mon ennemi, c'est mon ennemi. Ok. Elle est mon ennemi. Ok. C'est pour ça que je dis ça. Mais maintenant, il faut arrêter de vous discuter. Il y a ma petite sœur qui vient ici, c'est ma nièce. C'est ma petite sœur, c'est tout pour moi. Je voulais vous présenter maintenant. Comme il veut manger, il faut le donner à manger. Il ne faut pas amener problème ici. Dachou Oui. Dachou Oui. Viens, je vais te présenter. Eh, c'est ma nièce. On est ensemble, c'est ma soeur. Délégué. ku la naw laa joxoon la cër mais suural ne dañoo nekk ci weeru ngëneel weeru ngëneel ku nekk war ngaa war a wax booy wax nga xool la ngay wax seggat ko ñu duggee taafeer ne taafeer weer wi passin passis jiin royal dét black lépp dafa génnoon sama xel tey bu demaatee ba duggaat sama xel yow la man ndax sax maandu maandu lu ma doon jëfandikoo la weer wi ma toog di ñaan yàlla nii ma fonke weer rek ni ma gëme ni ma jox bëgg jox ci weer wi rek yàlla raxasal ma ci sama xel sàngara ak lépp lu jëm ci ñaawteef ba bu ma génnee koor gi mu law tey bu dee waxtee sama xel yow la te maa ngi di jàkk ji du loo gis wax ko déedéet. wax nañ la règlement règlement kër yi. nekk si kër gi ba règlement la. kër gi boo fa demee normalement bu ñu ko mos a waxee na règlement. fii nag am ay règlement. maa gi. kenn du fi nekk te doo woor. ah man mënu ma woor parce que dama am ISRA je ne peux tata man mënu de. waay waay waay. daa am ISRA. daa am ISRA. daa am ISRA. daa am jëkkër marié. non non. ah elle est femme loolu lépp ko négocier après. Mhm. Mhm. nag loolu grave loolu après dinaa ko lijjanti. Mhm. waaw kay. am na ku fi nekk sa kër gi sama sama jarbaat la. góor la. fi xam naa moo tax sama laaj ba xam ne am na ma. Ah. sama il. il aime trop les femmes. c'est ça oh. waaw. Mhm. léegi nag. c'est ça dafa am jigéen. Mhm. ngir yàlla bëtam bu nee tegg ci yow rek. Mhm. c'est ça. fonta cey ngir yàlla. maa ngi lay ñaan. ak saxaru ramadan bi ñu nekk. beneen bët bu tegu sa kaw rek nga ñëw ci man wax. c'est ça aussi. c'est ça c'est bon. On va rentrer. Hum, toi, tu m'aimes beaucoup. tu es mon frère. Eh? ok? <laughs> Faut qu'on ait ton gène là. Ah. Tu fais les truands, comme ça. Hum, Faye. Faye. Hey. Eh. Faye. ku ne am nga ça? c'est que nous xam nañ ko taxaw man la def nga mais tu es un ne fayda ñoo gën sa classe gi parce que bu ñu màndee dañoo mandi seen mandi gu bopp ne ca la ñu ne seen yoon newul ci keneen waaye nag yoon ne coccul ko comme nii doon délégué war a defar war a xool ko nar a dëng nga jubbantiku nga téye sa làmmiñ di mbappi mbappi na koy baax tey bu sama xel delloo ci wàccee sa delloo ci sàngara yow la. bay maandul déet ah. kon nag sa waaye dama bu ma kañ bu ma ne kañ kay yoo koy sëriñ dama bëgg nga di jégalu sama borom fii ma jëm sax. yooye eh, damaa bëgg nga tëj ko xam nga mag ba amee cër moo ko jox boppam yow li ma toog fii dina laaj trois cent mil ngay tëbaka dal di xëm ak ximi ndek yow yaa ngi xool xale ci biir kër gi ba ci dudd sa jarbaat dama ne nga noppi yow damal nga jël kaas ndox bu sedd nga naan ko te xam ne pare nga fi nga tëdd di leb fekkee mar nga yaakaar ndox wóor na yàlla boo koy lekk di ñibbi yow man xiyam li ngay ñàkk fayda ak sa koppati bi nga mel kat yàlla wóor na yàlla yow xool fi ngay toog xool doomu jaam ngay jur nga ñu boppar ñu bootal doomu jaam de su bu ko juree dala leer na yow lay mat yow bayam yow la buy judd naa la tëb nga dee ndax yow da ngaa yàq jox jëkkër ju ñàkk fayda laa am li nga li nga yekkee day tax nga jur xool boo ëmbee xool doomu jaam ngay jur yow kan ma lay ëmbal man eh eh gesul xol ma man ma lay ëmbal yow kon yow wëroo yow ya, waroo man ma ëmbal la yow ya, mu ñàkk fayda mu mata di ma ëmbal la lu toll ni weeru koor kilifa yëpp toog jiite seen kër yi nga toog fi di xool xale yi jigéen ñi wax mu naan sama jarbaat bi ya naa yow daal yaakaar nga bu xees bu nekk ca bopp la war a dal yaakaar nga bu xees bu nekk ba ko yàlla bindee pour yow la xoolal xale bu xees bi na la lenn pour yow ndax sa jarbaat koy may wax rek ngay fayda